salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna kii ma toogal nag bu ma toogee ak moom ñiy seetaan ci internet bi duñ ne guléet seen direct nag tey seet si ndaanaan ndaanaan bi mu seet si nag kenn dootu ko présenté ti kenn ànd fekk artistes yu bari waaye nag ñu gën koo xamee ci artiste boo xam ni moom mooy nongaloo dem jaaja jaaju Fall Massamba nee na Fall ko di jéeg mu fànnumbe ñu xamee ko tamit ci benn compagnie boo xam ni ñu ngi ko African Ndigal ba léegi rek ñu gisaat ko nag ci beneen facette boo xam ni ñu ne déetawaay mu ne ca kaw boo duggee pikin xale yeeg man li ma gën a jaaxal bi ma demee tournée waa Nant ca kaw diaspora bi ku ne naan ca kaw Djily Mbaye Fall ñu ngi lay nuyu waa asalaamaaleykum Abdou Aziz Géwél bu Silvissé maa ngi lay nuyu maa ngi lay siyaar maa ngi lay sant di sant tamit waa Sen Direct mhm. ci émission làmb daj ci émission làmb daj mhm. ndax bu ne làmb daj moom foo làmbee di foo làmbee daj surtout ci cakaw mhm. surtout ci cakaw moom foo làmbee di nga ko daj waaw di leen gërëm nag di la sant bu wër waa ci invitation bi Djily mbay Fall doomu Pikine la wala doomu Touba la wala doomu lugal, wala doomu xombal la wala doomu fan fan la jili mbay fal sox ko lan mooy cosaanam moy cosaanam. waaw loolu boo ci laajee dama ci contane ndax man mangi ngi soxi ko Louga loo. maa ngi juddoo Louga. ñu duppé ma bay jili mbay. borom milliard ya borom milliardaire. doomi mam Cheikh Mbay ja ma la wax loolu. bayu khadim bayu mam Cheikh. waaw mu juddo lugo nak yaro Pikine. waaw muy fii ak fee gi may wax rek. ca kaw ca kaw. Mhm. waaw kon ma jóge Louga. Mhm. ba may tut tànk. Mhm. ñëw nag euh, sama waajur bu jigéen teel a génn àdduna. ma ñëw ci sama yaay. yi nga xamante ni moo dëkk fi pikin moo ma yar. fi laa jàngee école. fi laa màggee fi laa defee. sama jeunesse Pikine. waaw Pikine gii laa jàngee. fii euh, école 4 en seconde ma nekk fii euh, école. Habib Tidiane ñu koy wax sud sud waaw après lool nak ci la dugg si art bi mhm. waaw lan mo la duggal ci art bi wa art bi may dom geewal may dom geewal nak di geewal ci nday di geewal ci bay te ku wax luga te it xamni ni dekup arla. la kon tay ji bu ma nyari waxon tagal sa juroom ñaari mam di nga ko mën tag bu baax a baax a dengoñ mi ci mi ci lambay baba bradan demba dan ma ca konakri kokoy sama mam yag jangay sama yaay Momar Binta falay sama -hmm. may mm mayor mhm. di mm -hmm. di bay mam Cheikh Ibra mhm. Mhm. di bay ndongolo ah xam nga li nak dafa bax giwol day xam boppam jili projet yi nga dugg fi ak feji man bi may dugg si man fi ak fe ca kaw ni yaangi fi, wa dah ndax fi ak fe mom dafa wax lepp ndax man boo xoolee sama palmarès lépp ci fii ak fee laa ko laa ko dundee ndax bu ma juddee Louga yaroo Pikine fii ak la bu ma nekkee Pikine tamit di ànd ak ndongoloo daan ànd ak Fallou Dieng hmm. ànd ak Youssou Ndour ànd ak ñu bëri mais sa palmarès ak Fallou Dieng bëgg naa nga may ma ci tuuti mais Fallou kooku ku ñuy wax Papa Ndiaye Thiou di sama xarit hmm. nga xamante ni moom ba di di nekk école hmm. danoo bokkoon benn koñ. Mhm. moo xalifa mbay nay nay. Mhm. ñu daan ànd ak Fallou Dieng. Mhm. man boobu maa ngi jàng. ba aar bi ni mu duggee ci man nag. benn jour mu gis ma may fecc. man ma il faut ñuy ànd di dem ci Fallou Dieng. looloo ma booleeg Fallou Dieng. Fallou Dieng nag. ma commencé ma commencé ci moom ànd fu ne. def jalgati. mu yëngal àdduna. loolu yóbbu na États-Unis ñu jugee fa def Angleterre. def tournée européenne. waaw jili ah. foofu yëpp jaar nga fi. ah mais bien sûr. nongolo. ah nongolo nak, après fallu Dieng la parce que nongolo mom day sama sang. Mhm. di sama mbokk. Mhm. ñu yarandoo bir Pikine -hmm. ma dan jangé sud à chaque fois buma waccé mhm. mu may tooñ. nan ma ah yow doom geewul bo xamanteni chaque fois rek nga tak say verre ni yoré sa classeur. da nga wara ñew dugg ci art bi. bobu commencé na di way. ci simbi yek ay affaire yoy nonu ba par la suite. aar bi dugg ma nag ñu commencé ma commencé di fecc après bi may fecc Fallu Dieng laa njëkk a feccal def ak moom ay tournée ci lan ma xamee ci laa defee samay premier pas ba moom bi muy génn ba fekk na sax man ba fekk na xew naa boobu maa ngi ànd ak Papa Ndiaye ci ñuy toj fépp nit ñi xam leen di tourné di dem ànd ak Fallu Dieng di tourné di dem fépp dafa mel ne fecckat yi sax c'est mhm. vrai que bu ñu bëggee tey sañse xool nañ ci yéen waaw parce que loolu innovation la parce que boo ñëwee ci art man pour man bo ñëwee ci dara da nga wara indi lu bess lo xamanteni tay fi tay bo ci nekké nit ñi nga xamanteni dañuy sétane ak nit ñi nga xamanteni bu ñu bëggul won mbir mi sax dinañ ko bëgg ndax seen comportement manam mm-hmm. muy sol set di and ak ñu set mm-hmm. yaro fo xamanteni tamit da ngay am yar ci lo mën ti def nak mm-hmm. muy pecc mi muy way wi muy xarit yi muy lepp lepp doon yar jital yar nak lolu gën na no may chance ba ñi ñu nu doon li ñu doon ñu doon ko seen direct nag tey ngeen am Djily mbay di danseur bu mag bi di danseur international bi mbokkum ndeyum Yéri Cuun ak xalifa mbay mbokkum ndeyum koo di nit ku baax tey jii ci ñu jëm ci ca kaw ca kaw ji. waa ca kaw la wala cassette buy waaj a ñëw maam Cheikh Mbaye ji li ca kaw ji. daal mais mais ca mais ca kaw ji yow Aziz boo ma ko waxee yow dama dama ciy neex dama ciy mën a waxtaan ak yow. Mm-hmm. parce que yow ca kaw boo xoolee ba muy. ba muy génn sax man ak yow ñoo taxaw ndax boobu dama jugee Nantes. Mhm. am association bu mag boo xamante ni dama ko tuddee woon fii ak fee. Eh, laal nga lu graaw waaw. <laughs> am na benn <laughs> un ndeysaan. Mm. les enfants de la rue yi nga xam ne ñoo nekk fii maanaam taalibe yi ak booy yi nga xam ne yàlla day dogal gisatuñ seen njaboot nga indil leen ay yére. Mm. jële ko Nantes. Mm-hmm. collecte boobu nga def ci diggante xanaa fii ak fee ca kaw la. waaw moom laa doon wax ni dama lañ man dama jugee fii dem Europe bi nekkee Nantes. taxawal benn association boo xam ne dafa tudd fii ak fee association bi doon association boo xamante ni nag association sociale ak culturelle la socio socioculturelle la. ci mhm. côté culture bi may jàngale fecc. Mhm. di def ay stage di def ay événement di def ay. bagages yu bëri foofu sa France. Mhm. en même temps ci côté social bi nag tamit ma amoon un moment donné. ni damay def un collecte bo xamanteni dama koy indi Senegal lolo mo waral Senegal nga def fi lu mel nonou waw jàppale les enfants de la mhm. rue def fi animation. Mhm. jël xaalis bobu au lieu nga jël xaalis bi dundé ko. Mhm. nga wat ko xalé yi. waw moy mooy social bi manam fof nonou parce que mën ngay def ay soirée yu ne di def ay soirée payante mais un moment donné ñu def une soirée humanitaire manam ku nekk bo ñëwé da ngay indi soit ay yéré wala nga indi bik wala ngay parce que bobu ñun fi pikine gi ñu nekk. gis nañ xale yi ni ñu xawee sonn ci école beeg affaire yooyu en temps ndigal bi nga xamante ni sama sang ba nekk tamit ma xooloon loolu lépp ni pourquoi pas du ma def une soirée humanitaire boo xamante ni ñoom dañ lay jàppale ci loolu ma yóbbu ko ndigal mhm. indi ko fii yóbbu ko Louga beneen moment bi tamit sama soxna beneen soxna bi ma nekkaloon fële mhm. boo xamante ni sama ñoo doon liggéeyandoo mhm, moom it bi muy ñëw ñu def beneen collecte boo xamante ni pour élèves yi nekk fii Pikine la. muy toujours fii ak fee la. loolu loolu moo fi ak fee. Mhm. maanaam waaw ca kaw. waaw muy moo fii ak fee ca kaw. di nuyu suñu PDG borom États-Unis ñu ngi lay jaajëfal bu baax euh, di la xamal ne nag diaspora bi ñëpp ñu ngi jii li mbay Fall ca kaw a kaw a kaw kaw Djily mbay Fall kan moo produire Djily Mbaye Fall. waaw ki ma produire euh, mooy maam Cheikh mbay jëriñ ngoone. jëriñ ñu bokk waaw ñu bokk dëkkandoo nant nag. waaw mm-hmm. ah, moom mu doon un producteur boo xamante ni boo xoolee. fi mu toll nii fi ñu toll waaw ñoo dëkkandoo nant ñoo dëkk ñoo dëkkandoo ici aussi à Dakar. parce que moom c' est un sénégalais en même temps tamit am na ay mbokk Louga. Mm-hmm. Louga tamit am na fa ay mbokk. Mm-hmm. xam nga moom it mu gis li may def xam ne je suis un bu ñëw basé wu à Nantes. mu proposé ma def ak man un single. vraiment boo xoolee label bi sax je suis premier boo xamante ni man la njëkk a produire ci label bi. Mhm. fi mu toll nii Jëri Ngoné gi coow li bëri na. ca kaw gaa yi ku nekk waaw ndax ca kaw gi. fii ak fee ca kaw nag moom. doon dafa doon loo xamante ni da doon suñu slogan. Mhm. yow mii Abdou Aziz yow mii wax yaa nga ca kaw. ak ak waa seen direct. seen direct ca kaw. ca kaw la force. waaw waaw ah, dégg seen direct ca kaw. waaw waaw tey jii jii li euh, par exemple. yaa ngi jëm ci album bi morceau bi génn na. Mhm. Euh, ak pandémie bi nan nga nan nga def ak jamono jëm xat-xatu jamono ji. waaw mais jëm ko dund ak moom rek parce que nous on est des artistes gis na ni côté art bi xaw na metti trop période bi ak pandémie bi les salles ne sont pas ouvertes tëj nañu lu bëri. lu bëri loo xamante ni activités yi ñu doon def yëpp même en France sax boo xoolee les salles dañ ko tëj ak loolu lépp ni en ce moment nag c'est le moment de faire un single. jëm ko jox wa Sénégal pour wan ni ba tey ñoo ngi fi clip bi ñoo ngi ci instant bi ni Papis nga mo koy tourner xalé bobu may dégg muy way ci single bi kan la chat sec di doom Pikine Chat sek nak mëna way trop hmm. man ah. li tax sax ma proposer chat sec mo moy kan ni mom ndongolo gi mu bëgg hmm. di doxé diko di diko wané hmm. di wané wane amu ci ben complexe motax man bama démé bani diw dina ma wayal dama ni producteur bi man je préfère ñu wol ma chat sec parce que dina dina ma wax lo mhm. parce que dina melni comme ndongolo taxaw di way mhm. lolu gëna ma gëna inspiré ci lolu bu taxawé sa wét dina la wax lolu ma la wax lolu wa mais ji li ñu gis nak ci biir way wi nga nga wacc say xarit bu ñu waxé ni ce trondo borom milliard la mhm. waye yow li nit ñi def defoko da nga xol way say xarit delloo leen ci ñukol waaw lolu nan la la diké mais fatlikou demb rek parce que boo xoolee démb bi ñuy démarré fii man Papa Ndiaye ñoo daan ànd Yelli Cuun Xalifa Mbay Yanda bu Buya Cuun ñooñu laa ci way Ndey Géey Yanda naanaa kooku dafa neex kooku sama day sama xarit boo xamante ni man daf may daj yi moo tax ma demee ba ci Yanda rek dama ci teg naanaa mu doon affaire bu neex waaw tey jii li mhm. euh, jamono ji yëngu mhm. am Sidi jàppal Waali Mm. artiste si ñoom am ñeneen ñuy defaat benen réponse di ci tontu di ci duggal di gën manam mbir mi ñu koy gën xam tay en tant que nga doon ñoom ñepp seen kilifa njëkk leen ci aar njëkk leen ci seen yoo xam ni mën nañ ne séntu asamaan jarata buxante mais international nga tay ji bo leen doon conseil lan nga leen wax wa ñu bëggante rek man limay wax ni aar dafa yaatu mm-hmm. maa koy wax ci morso bi sax maa naan aar bi dafa yaatu ku nekk bay sa waar mm-hmm. du tax mu des fi. kon sa way moom ñëw maa la wax loolu way bi dafa ànd ak jamono. Mm-hmm. te xam naa lu ñuy gën di dem sax nit ñi gën a xam ne way bi li ma ci wax lépp dafa bari mm-hmm. parce que fàttaliku naa ci démb samay xarit. Mm-hmm. ñi ma daan àndal. ñoo wax ci biir aar bi. ñu mel ni ay PAM Sassou ko nga xamante ni mooy président sunu association bi. waaw yéen a waaw loolu sax bëgg naa. ñu ñu waxtaan ci. muy association boo xam ne ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel Sénégal. ñu gis ni.

programme bu ne bënt ni ngay sol. Mhm. kon booloo bii ngeen booloo am na ñu ne yeex na. Mhm. waaye xëy na day soog a jot. waaw xam nga li ñuy wax lu jot yomb. Mhm. depuis ni olof Ndiaye di wax naan yàlla buy defar day mel ni ko yàq. yéen ngi fii ci roq bi. ginnaaw nii mu ngi fii fu ma ne nii. ndax ñun toujours mooy li wax rek. mbooloo ah. mooy doole. ñun ñoo ngi fii tous les jours ñooy nekk. ñooy waxtaan démb gan daan ànd moom la ñuy ànd ba tey. moo tax dara mënuñoo bett. ku ñëw tey ñu ni léegi léegi léegi faw nga defal nu lii dañ naan gaa yi jug leen rek ñu takk daal di dem def ko. léegi gars yi xaaral ma xooli ni mhm. benn xaritam après ñu ñëwaat ci ji li yéeli cuun. waaw mi ngi noonu yéeli mi ma doon laaj sax egsi na borom africain ndigal di koo xam ne moom international la kenn du ko présenté kenn àdduna wërngal këpp foo gisee ji mbay gis nga fa yéeli cuun. muy Baye Fall borom ndigal ah muy sàmm gaay yi Baye Fall bi maa ngi lay ziar. waaw lay delloo ziar. di la jox sa wàccuwaay bu baax yaa ngi seen direct. Mhm. si relation ak Djily Mbaye lan la. bon relation bu yàgg la relation entre doomu ndey la parce que boo dee xool aussi bu ñuy xamante man Djily Mbaye yàgg na ay 98 99 la la. 98 mhm. 99. Mhm. waaw ci lañ xamante ci benn bàddu nuyu bu ñuy wax biddéew ba. bidiw defé na pikin la nek pikin la nek mu fecc ba pare. mu ñu ba ci mom nag franchement pa la mën nga fecc. mu ne ma yola la ko mën na ko yëlli rek mu ne ma yola ay wër kottu mu da ma papa Ndiaye doon wax ci yow quoi. noonu lañ commencé xamanté fofu ngeen xamanté ba tay ji mu jek jek tek ben affaire bu bees. manam ben carrière muy ci kaw. mu genn single ñu ne détaway ciow li bari ci kaw ci kaw. ñu xamni ni dooley jën ndox.

man ci commencé association ci la bokk. waaw boobu def fa suma mois. mois chaque mardi chaque vendredi il y avait des cours de danse. Mhm. ñoo ko doon def man ak ak Bamba Gay. kon a les enfants de la rue waaw soirée collecté bi waaw. maanaam loolu social la bokk quoi social la waaw social bi. léegi ngi ci mhm. donc fii ak aussi di association rek musique. Mhm. dafa am danse ay atelier de danse. Mm-hmm. ay soirée yoo xam ne moom Djily Mbaye da koy organiser Nantes. Mm-hmm. yenn saa yi mu woo benn maestro. Mm-hmm. jële la dëkk envoyé le billet. nga ñëw nga def fa classe bi. maanaam mu ngi liggéey ci art bi. jamono di dox ba tey mu def morceau. tuddee ko ca kaw. donc ca kaw aussi kooku slogan Djily Mbaye la boo xam ne dafay frappé. parce que ku ne ñaan nga yàlla saa yu xëy dem ca kaw. mais dañu gis ni ca kaw euh, ku soñoon. da ngay xëy jëm ca kaw kon seen direct nekk ci direct rek saa su ne di wax lu am mais dañu gis mu wayu ci ay maanaam ay xaritam la delloo njukkal ci wayu loolu mooy àdduna Aziz nit doo fàtte démb parce que moom xaalis taxul muy wéy parce que il a des am na lu mu ñu sant yàlla. ñu ngi sant yàlla alhamdulilah xam nga. Mm-hmm. parce que fecc aussi bu du dara fay na Djily Mbaye. Mm-hmm. parce que Djily Mbaye aussi la. Mm-hmm. donc euh, muy suñu fierté aussi. ca kaw bi. parce que bala nga xam ni. amna ampleur. Mhm. nga bàyyi bu mu genn mhm. kon yéen ngi ci clip bi. bien sûr ñëpp a ñëw ah. ak ñoom Pape Moussa Sonko. Mhm. ñoom. Ndeye Guèye Ndeye Guèye Oumy Sow Sow Pape Moussa di ku bax Pape Moussa. waaw waaw fofu dañ fay taxaw tuti euh, ñu dégg ni jamono ji ñu tollu yeen yéen kat yi am ngeen benn association bu mag bo len tek waaw association bi ADSMS la donc euh, moom mooy président bi Pape ñu votel ko tànn ko. wóolu ko jiital ko. muy koo xam ne acteur culturel la parce que aussi moom mi ngi mi ngi def ay performances. moom Pape Moussa nit ku baax la. nit ku baax la am na ay linkam. xam nga man am naa samay link. ji li am na ay linkam kenn am na ay linkam. bu ñu ko boolee waaw. parce que ñun suñu ambition mooy def tey ëllëg. Tanébér tour en Europe. dem France Allemagne Italie Belgique. Suède xam nga. xool nu ñuy def ay. tànn ci yàlla yóbbu ak jàmm ay spectacle noonu lay demee incha allah. waa tey yéeli fii réew mi toll. yéen ngeen dem fu ne réew mi jaxasoo ñuy dégg ku ne waxal lii waxal laa ci artistes yi waykat yeeg ah fecckat yi ak nit ñi siifante affaire yi détails xew boo doon conseillé tey aar maanaam yow duñu la laaj ci fecckat wala ci way lépp la ñuy généraliser laaj la ci tey buñ la doon laaj ci aar bi nan la nit mën a defee ba mucc ci maanu teg ko fi mu ko war a teg. mooy def ni man parce que man dama jël exemple sama bopp muy gëm sa bopp d'abord. doylu hmm. maanu hmm. xam ne yow li nga téye aar bi nga téye hmm. yow da nga ko da ko xoslu Abdou Aziz ba téye ko waaw ñun suñu aar ñun fecckat yi am na waykat yoo xam ne ñun lu ñu mbappat sax ñoom mbappatuñ ko te doo ñu dégg ci lenn déedéet yaa xam vrai doo ñu dégg ci bagage yooyu parce que ñu dewuñu foofu parce que Sénégal dañ fay yàgg liggéey ñun luñ fi am dañ koy suturloo mais bi ñu demee ba génn dem bitim réew. ci lay doo xam ne ñun liggéeyal sa bopp rek mooy dëgg. maanaam mooy gëm sa bopp. parce que fecckat bi yóbbu na Wally Genève. waaw waaw. am na yeneen yu ñëw sax. ak yeneen yu ñëw loolu ñoo ko yóbbu Genève sax parce que bañ naan yële cuun. Hmm. African Ndigal te African Ndigal boo dee xool Djily Mbaye. Hmm. il fait partie ci que gis nañ ni gis nañ ni moom lañu moom la ñu wax yéen li lii jii li nekkee ni ca kaw ji sot la.

waaw ah. loolu xaw na xaw na macha allah xaw na takku de. événement c'est normal comme Bercy comme yooyu rek ñëppay ñëw. kon day amaat ah, bu waaw yàlla. doon bëggoon def ñun bés lañ bëggoon def mais mbas bi moo tax. Mhm. waaw ñu daan koy pousse quoi. incha mhm. allah yal nañu ci yàlla yóbbu kooku mooy Yelli Cuun. jaajëf di jumeau ki nga xam ne nag mooy ca kaw ba léegi rek Xalifa Mbay anam. mi ngi ci biir xaaral waaw mi ngi noonu. salaamaaleykum Sénégal kii ñu toogal nag ba léegi gis ngeen Yelli dem na mais kii mooy Xalifa Mbay ñetti doomu Penda Naari Cheikh yaa ngi noonu buñ nee Khalifa mbay moom kenn du ko présenté kenn nay nay xalifa maa ngi lay nuyu. waaw ah, maa ngi lay fay euh, di kontaan ci invitation bi aussi. Mhm. nga dalal sama doom day Diéli Mbaye. Mhm. Euh, suñu kilifa jaar fi ma yéeli. Mhm. kon yow boo ma dalalee tamit euh, gënu ma laa xam sama bopp. goro maa xam sama bopp kon moom daal dama lay ñemee. Mhm. maa ngi lay fay. seen direct tey jii kii ñu àndal mooy xalifa mbay artiste la duñ ko wax artiste international la nekk nit ku baax nekk nit koo xam ne tey jii kan mooy Djily Mbaye seen ànd. waa Djily Mbaye nag euh, bu may wax sama ànd moom damay wax ci yarandoo bi aussi Djily Mbaye intellectuel la boo xam ne yaakaar na ñëpp ñun jamono ji Djily mbay dafay doon koo xam day day day kawe ci jàng trop parce que jàng la bëggoon. Mhm. yàlla def nag boobu ñun cousin moo doon gën a fecc muy Maajoor Cuun mhm. ñu gën ko xam super coof Maajoor mhm. lañ gënoon fréquenté ñun jamono ñuy fecc boobu jili feccul mhm. boobu jili mi ngi jàng ba jili demee ba bàyyi jàng aussi mu dëgg yenn activité yoo xam ne lépp rek c'est intellectuel ba tax na moom mu ñëwoon day fecc ñu ko njëkk a gis Pikine yëpp dañoo jaaxle parce que niveau ak qualité bi mu newoon ci ci jàng mi ak ni mu ko bëggoon dafa bettoon ñu bëri waaye kooku moom loolu mun naa ko wax ci Djily Mbaye ca kaw bi ñu gis ni sot la gis nañ ne yéeli cuun borom african digal xalifa mbay ak ay projet ñoom ñëpp ñu bàyyi loolu tënku ca kaw bëgg a jàppale yëfi affaire bi am riir boo rombee ñu ne yéeli boo rombee ñu ne Khalifa Mbaye boo rombee ñu ne ñu ne ca kaw ca kaw ca kaw kaw ji la waa ca kaw boo ko déggee parce que fu mu toll mooy fu mu toll nii dañu mën wax ni toujours ni li ngay gis nii ci télé bi nii arbre bi xaw na voyage bu yàgg. Hmm. léegi jili dañ ko dénk ñu moom comme que mooy voyage yi. ak yi des yi gars yi dem ci kaw nii. moom mun ñu def ko ñun suñu association bi dañoo bañ ba def ko loo xam ne mooy lépp koy extérieur. Hmm. jili mbay lañ ko jox parce dañoo toll ci fa toll nii itam ni Sénégal ni musique bi dafa taxaw. Hmm. Euh, comédie bi taxaw lépp taxaw parce que sabotage bi ak PS bi ma lay wax nii. Mhm. boo fa bëri fi lay mel. parce que aar boo déggee fii ak fee ca kaw. Mhm. jili mbay dundal na fa ñoo xam ne bàyyi woon nañu aar. fii mhm. Sénégal. bu mu ñëwee bu mu dajeeg ñoom foofu ci Nantes. waaw dañoo gëmaat aar ndax moom. ñëwaat loolu lu bokk ci association bi. loolu ci la bokk. parce que tamit Sénégal fu mu toll nii euh, boo ngay xool nii. li fi gën a yomb fu mu toll nii ci métier muy aar. moo ci bongomaan yi. moo ci ci ci taasukat yi. moo ci woykat yi par exemple bi boo xam ne kenn du la daggal juuti doo fay impôt. di nga ci am ñu la bëgg di nga am yéen di nga am ñu lay ñawal. tey ngeen dégg yéen waa seen direct loolu leen mës dégg. di ci am ay gel bu fekkee lu nga jot di nga am xaalis xam nga la fa neex. métier xam juuti fay impôt. kenn la ci sonal. di nga am xaalis di nga am téer bi di nga am jaaykatu jën bi di nga am jaaykatu yàpp bi lépp day facile. loolu aar moo tax ni sabotage li dafa bëri yu naaw mhm. trop trop trop trop way ci Sénégal

dafa am xel moom xam day xel di xel yi. macha allah. parce que yow mi nekk lii sax di ma laaj xam ne Sénégal fu mu toll nii aar bi dafa dem ba mel ni guerre. waaw xalifa foofu dañ ci taxaw aar bi dafa mel ni guerre Sidi Diop Waly nit ñi di di di xëccoo di waxante lu ñaaw mais ñun gisuñu ko ci fecc mi way fi mu ne nii ci lañ ko gis loolu boo doon am conseil boo ci joxee loo ciy wax. waa xam nga dafa mel le cas de football Sénégal mun na cee génne pële. bu dee fee la ca ca ca monde bi coupe du monde bi mhm. fii football mun na fa gën a bokkaande mhm, déedéet fecc lu tax ñun teg suñu bakkan mënoon ci génn ñun déedéet déedéet mënu ci génne Djily Mbaye mënu ci génne suñu président Pa Moussa mënu ci génne muy saw mënu ci génne Yanda mënu ci génne Yéli Thioum mhm. mënu ci génne Ameth Thioum mënu ci génne Alioune Baya mënu ci génne Ngees ba ci Riis ñaa dañoo dem ay tonnerre yoo xam ne fii dañoo xeex suñu lépp loo xam ne dañ ko xeex ci fecc ba nga xam ne mënuñ cee génne léegi loolu problème boobu nag waykat yi naa ci kate woy bi moom sama yoon du ci ne xam nga sama yoon du ci ne. Mhm. ñoom mooy sabotage ak PS bi. ba léegi dafa am foofu. waaw dafa am foofu parce que tax euh, mu am foofu ñun dañoo war a xool ni ñag yi bu njëkk ba ñag moo daan xool ci mhm. yu ginnaaw léegi boo xoolee ñag yi ci li ñu lan doon xool pour solo ñag ci ñu la xool pour rafet. pour rafet waaw. mais dañoo ne ba nangu téléfilm yi. waaw nangu woy bi. parce que seen cadre international la ñuy wax. amul euh, xëccoo. international bi eh, ñoom li ñuy wax dafa baax parce que anglais la ñuy wax. Mhm. ñun pour ñu sol la ci ñag la ñuy xool. Mhm. da xool le cas fi le cas de Kofi mhm. Kofi dafa dem ba nga xam ne moom mag la. neen dootul génnee benn produit. dootul joué dara ay jeunes talents lay dajale. di leen wan nan la yoon bi. da ngay xool ay fecckat lay dajale wooy loolu leen. def ci ñaari baat finance ñoom xaalis pour booy dem. mais loolu dafa manqué Sénégal. moo waral li moo waral. wooykat yi dafa manqué Sénégal producteur. lan moo Senegal, Sénégal woykat yi magi ne Sénégal ñoo yaatul xale yi. waaw. xalifa ci seen direct ngay waxe de te lépp dafa war leer nga ne yi magi ne ñoo yaatalul Sénégal ci xale yi pour ñu dem. mais xalifa sa kàddu gu mujj lan la. sama kàddu gu mujj mooy njëkk waxoon naa ko muy sabotage ak piège. Hmm. dañoo bëgg ñu nit ñi fu mu toll hmm, hmm. succès bi amatul valeuru aar amatul. Mm-hmm. valeur succès amatul. Mm-hmm. yow da nga doon artiste sa téléphone. Mm-hmm. ndax lan site internet yi bari nañu. dañu bari. waaw da ngay am da ngay am benn site boo xam ni yaa ngi ciy tudd toujours. tip sa néeg ngay ne sa téléphone ngay di def lu neex di ñu xam la. nga ne artiste nga. nit dina wér ree nit. te fekk du talent moo tax mu koy ree mm-hmm. stress. déedéet da laa yërëm. da laa yërëm <laughs> déggal xalifa. waaw da xalifa fa xalifa seen direct. seet si la ñu waxtaan ci loolu. non da laa yërëm xam te mu yërëm la. day xam ni boo mën conseil. Mm-hmm. lii ngay def nii nit du ko def. aar bi mu toll nii artiste dafay jeex xam lu fi am ay golo nit boo bëggee dégg dégg te golo eh. tubaab rek ko amoon ah, te golo nit tubaab bi lu tax mu amoon ko parce que bi ah. mooy ànd ak yow la lekk sa ah. xaalis antiquaire bi du tëkkatu jémbee mhm. pang mam mam nga ne yii mal jémbee maaso ay loolu moom Sénégal fi mu toll nii ay golo sama mhm. kàddu mooy daal maanaam mais association bi may dégg tournée bi dem dox mbokk bi dégg naa tournée bi yaa ko yor waaw ñun nammuñu corona ñun jooy ñu corona parce que boo xoolee na ndax ñu corona jooyuñu corona xam nga lu lay rey ba nga xam ne kii yow kii yaa ko tax a jóg pour mu rey la. waaw corona la fi indi. mu hmm. rey leen. eh xalifa. waaw c'est vrai ki fabrique corona bu nga ko joxoon sànqee géwal mu dooleem bal ministre mi ngi liggéey jaaykatu yàpp ba ngi jaay maçon ngi liggéey euh, jaaykatu. su eh, yéen yéen a yooyu. kenn gérer wul ñun suñuy bagage Aziz. ma dégg ay somono ak yooyu ñu ngi. ñu waaw ñu ngi lay déglu suñuy bagage du teew ci naqar ci bànneex lay teew tournée boobu may def noonu moo tax ngay gis nag ñaan gars yi waaw waaw loolu ñun ñoo bokk ndey ak ah, baay pour nag tournée bi ñi ngi gis ñuy dem ñu ne Khalifa Mbaye moo jiite tournée bi dox mbokk la tudd ah dox mbokk mooy association la boo xam ne dañuy jékki-jékki gis jëli mbay na ko tey yaa ay mhm. bu ñu demee xool waxtaan ak moom vie privée mhm. sa luwaas nan lay demee mhm. nan lay demee ak nan ñoo amuñu kees fu mu toll nii loolu bokkul ak association artistes yi ba léegi. bokkul ak association danseurs loolu ñun ñoo koy def. mais dox mbokk la tudd. dox mbokk la tudd. Mhm. ma xool def ñaari patronage. Mhm. yoo xam ne mën nañ ñu jàppale. waaw bu ñu demee ne Aziz fi mu dëkk nii appartement bi cher na. Mhm. ñuy dem di la seeti. ñuy wax nan ngay dundee foofu nga wax ñu mën ñu def suñu citoyen boo xam ne ñun ñoo la koy jox. foofa reer fa rey fa ah. lekk fa dem pour war na ñun ñu ngi ci jàmm. mais idée boobu nag artistes yeneen yi war nañ ko sàcc jéem ko def dégg ngeen li li Khalifa Mbaye wax dox mbokk gi du dox mbokk dem toog lekk ndoog yow naana ndoog yow bu ñuy dem dañuy yóbbaale enveloppe boo xam ne xëy na bu la fekkee ci loyaas dina faju su la fekkee ci feebar dina faju kon xalifa yàlla sa jàmm yàgg. waaw jërëjëf parce que boo ma waxee yàlla na sa gëm sañu affaire Mbacke borom xëy na. kon aafiya ca kaw. maa nga dugg sek ambiance dama naan te sëbra ma ci ay pipi line fine merci jërëjëf lii dafa neex ndara fine fi ak fe ca kaw waaw fii ak fe ca kaw defe naa ne moom la ñu seet si woon Fall jili tay ji projet yi lan la wa mais projet yi euh, y a tellement de projets yo xamanteni commencé won nañ ko déjà avant Covid bi ñu ci doon waxtaan moy mhm. sank bi yeli togué mom moy par exemple comme euh, la dernière fois ñi yóbbu Euh, waa Genève. Mhm. doon xalaat beer tànnibee tour bi pour African Ndigal. Mhm. mais tànnibee tour bi ñu ngi ko créé ci biir Covid bi. Mhm. mooy bi association bi taxawee. dañ ne woon dañuy def tànnibee tour parce que jàppoon nañ ni corona bi du du du def un an ou bien que chose comme ça. mais ba tey ñu ngi ci projet yooyu. kon projet yi bëri na en même temps man tamit. mais ca kaw lan mooy projet waaw. sama carrière solo. Mhm. instant bi maa ngi ci sama single bi. bu mhm. ma clip bi ngi ci un album boo xamante ni euh, ak ak kon daal na nit ñi xaar ak direct ci émission numéro nénalen képp 77 574 39 06 mais Mbaye soxla ici au Sénégal 78 142 15 50. mais su en France la 06 41 99 87 73. kon daal directement site association fii ak y' a tous les détails dedans. kon seen direct ca kaw kaw léegi nag seen direct damaa bëgg nga waxal ko lu neex. waaw mais seen direct dama leen di wax yokk ak ndam ci li ngeen di def ca barke Serigne Touba ñu koy dégg fii di ko dégg fee. di ko dégg ca